yee Sénégal suñu international sénégalais bii di Pape Matar Sarr démb après ba mu defee match bu am solo bi nga xam ne contre Milan malgré ñoom lañ gagné coach bii di Antonio Conte dafa génn ay kàddu jëmale ko ci moom nee na am na satisfaction ci jëmm joojee di Pape Matar Sarr il a fait un match positif lañ ko doon xaaree indi na ko te it nee na c'était pas évident match bu toll noonee nga xam ne am na lu mat quatre-vingt mille spectateurs quatre-vingt mille supporters. di yëngu commencement ba fin 90 minutes yëpp muy réer taxul Pamata tiitul rafut lañ ko doon laaj joxe na ko ci njekk ak teraanga kon nag loolu jox na ko aperçu jox na ko xelum ëllëg mu xool ah, situation ak Pamatar Sarr nu mu war a demee kon foofee xel war na mën a dal ci coach bi kàddu yu mu génnee jox ko suñu international sénégalais bi di Pamatar Sarr pour yenn sénégalais yi nag naan booy bi dafa war a oser football di avancer vers l'avant gis ngeen booy bi ni mu woon keroog démb. dafa baawoon coach bee ko teg foofee waaw kon nag consigne coach yi da koy topp waaw te c'était première match am Ligue des champions moo nekkoon noonu amul woon droit di def erreur kon il fallait que mu jël temps poser dal simple tamit loolu la def démb te it réussir na ko la coach am bëggoon defal na ko kon nag ñun nan koy encourager bàyyi di ko critiquer il a fait un match abordable démb vraiment te bu gënee am confiance. du neexatee macha allah moom lañ fi am ci pipit kon nag nañ ko encouragé may ko doole jàmm ci yow Pape Matar Sarr yàlla nga continuer di wane ay jaloore jaloore man de en tout cas vraiment dinaa la soutenir ba ker ba jël ballon d'or européen du tee nag bu defee bu jaree def lu lu jare critique dinañ ko critique waaye actuellement jusqu'à maintenant mu ngi wane lu dara jarul macha allah kon nag nañ ko encouragé ah jàmm ci yow Matar Sarr yàlla na sa jàmm yàgg nga continuer di wane ay jaloore jaloore